xam ne kii di Pape Sané nekkee foofee nga xam ne moo di ca Walf TV na ko jëme ko ci ki nga xam ne moo di chiche bi di Omar Maham Diallo mi nga xam ne rek moo yoroon dossier bi nga xam ne rek moo ñeel Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Adji Raby Sarr moom nag la mu xamle moom kii di pap Sané di wax ne ki nga xam ne moo di Omar xam Diallo jamono ji nag moom jàppul ne benn yoon bu fekkee nag dañuy amalaat li nga xam ne moo di conseil supérieur de la magistrature moom Pape Sané nag muy wax ne jàppul ne benn yoon dinañ ko jëlee ca post ba nga xam ne da ca nekk njëkk loolu ka nga xam ne moo di Pape Sané mi yëkkati woon ay kaddu wax ne ki nga xam ne moo di Omar xam jàlloo ku baax la waaye itam ku gëm yàlla la mu nekkoon ay kàddoom moom Pape Sène waaye nag ginnaaw ba mu weddi kàddu yëpp bam set wicc yi wax ne ki nga xam ne moo di Omar Maham Diallo li nga xam ne rek def na ko diggante ki nga xam ne moo di Adji Sarr ak kii di Ousmane Sonko la moom Pape Sène mu nga xam ne kàddu yooyu waaye itam jamono ji ma ngay défendre ki nga moo di kii di Omar Maham Diallo ca poste ba nga xam ne da caa nekk mi wax ne rek moom ab liggéeyam la ne dafaa nekkoon waaye nag deful lenn loo xam la ba tax ñu koy jëlee ca poste nekk mu nekk ay kàddu yoo xam ne jamono ji ñu ngi yëkkati di ko jëmee ci ki nga xam ne moo di Omar Maham Diallo mi nga xam ne rek moo yoroon dossier bi nga xam ne rek moo doxoon ci diggante ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne rek moo di Adji Raby def koo yëkkati woon jamono ji ñu ngi koy partage yi di wax ne ki nga xam ne rek moo di waxoon na bu yàgg képp koo xam ne da ngaa defoon loo xam ne waroo koo def benn yoon ci réew mi di Sénégal dinañ ko diggaale ak yow ndax kat réew mi bàyyi kenn moomu ko yaay kenn moomu ko ñi nga xam ne rek ñoo fi nekkoon dañoo jàng ñu jàng waaye itam am si ñoo xam ne sax réewuñ leen ci ay nott mu nekk ay kàddoom moom usmaan Sonko.